juróom ci seen ay ñoñ la ñu defal mandat dépôt mu doon situation bi nga xam ne merloo na bu baax ñi di liggéeykatu centre tali bu Dabo yi nga xam ne ay weer a ngi nii ñuy jàppante ak direction bi ñoom nag jàpp nañ ne tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddal seen collègue yooyee dara teguwul ci. ñu xamal ni loolu ñuy wax ñëpp kenn mënu ci indi benn preuve matérielle bu ko génnee parce que nit ko boo koy takkal aussi da ngay wax nee nañ dañ faa tuur ay mbalit warul mën a tax nit nga koy fanaanloo kaso d'autant plus que lii du tey gis nañ fi suñuy camarades yu doon xeex hôpital la teg ñu jël leen tëj leen kaso pendant un an ba nu génnee ba tey dañu perdre seen emploi. ba tax na ñuy xamle ne centre bi li ko perturbé du ñooñee ñu jàpp waaye ci direction bi la jógee. léegi yow nga ñëw yoreel nit ñi fukki weer ak juróom-ñeent fayoo leen yow nga ñëw ñu toog ay ñeenti weer fayoo nit ay salaire waaw ñooñu amuñu sañ-sañ ñëw laaj. nga leen waa léegi xaar leen ma bu vendredi incha allah dinaa leen lijjanti lu ma leen jox yow vendredi forage kenn tegu la bët mais kun ko defoon ni sa xol dina jóg. yaakaar nañu si le droit et di ah bu du paree foofu dañuy génn dem ñibbi. laata loolee nag jafe-jafe yi di wéy ci biir centre bi nga xam ne doxatul lu ëpp ñetti weer liggéeykat yi nag di xam ne ne ñoom tiituñu benn yoon ci li nga xam ne moo ñeel seen camarades yi ndax jàpp nañ ne set nañu wecc ci tuuma yi ñu teg seen kaw.